ci ma balaa ngay ñëwaat élection inclusive ngeen wax bu ñu newee inclusive mooy na ñëpp bokk lu dëgg. non inclusive pour ceux qui sont en règle. yaa ngi leeral. c'est la prison waaw la prison est de je reprends les mots textuels du président élection d'accord léegi élection bi bi nga xamante ni en tout cas sénégalais moom lañu bëgg mooy na ñëpp bokk tey yéen a ngi bëgg ñu dem élection avant le avril. Bassirou Diomaye fay mu ngi ci kaso bi Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi donc ñooñu am nañu mbëbët bokk tey lii gën mooy ñoom ñëpp ñu génn et que ñoom yéen ñëpp ngeen àndandoo dem élection ci Sénégal ay tànn mu jël mu jël réew mi est que vous pensez un peu à ces à yu nga xamante ni xëy na bëgg a doon président moo leen yóbbee fi ñu nekk. non xam ne dañuy ku ci mel ne Ousmane Sonko. non xam nga le problème du président Ousmane Sonko est déjà réglé mooy ne il faut ñu baser wu si dara sur la décision du conseil constitutionnel. président ah Ousmane Sonko il peut pas participer à ces élections loolu il faut il faut être constant et très clair mais quand même euh, Bassirou Diomaye Faye c'est un candidat mais pour mu nekk d'égale dignité d'égale équité mu am équité si participation aux élections mais dañ ko war a libérer mu participer si campagne bi mun a dem par waxtaan ak Sénégalais yi il faut qu'il fasse campagne donc président El Hadj Malick kooku il a réaffirmé demain la libération da Diomaye fay pour mu mun a participer également la libération du président Ousmane Sonko nga xam ne dañ ko tëj te jàpp nañ ne dañu salfaañe ay droit wam